jërëjëfati seexul xadim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. seen mbokkam taalibe Fallou Galass Syll dellusiwaat na di feddliwaat ak cantam ci sëriñ Touba di ko feddliwaaleel murit saadix yépp di gën a joxaat suñu bopp sëriñ Touba tey gën di bëgg ci mboom suba ak ngoon di wax ne li sàmba Diarra Mbaye waxoon ne lu may lëjal nga ne ko cas sànni ba ma ko gis baa nga labal ko mu ne mes ki ma ji gisee la mat a xam mbokk yi barki Dembo Ndiaye la Moussa Diop yëkkati woon ay kàddu di wax na ilaa Touba bi dañ ko war a def ilaa Fuuta ndakate moom day dem bàyyi fi ilaa Touba bi laata mu ko yóbbu Fuuta sëñ musaa gisal sañ Touba bu baax a baax waaye xolaatal sañ Touba waxoon naa la ko fi nee naa la sëñ Touba noonu ne kuy léewtoog man sun borom ngay léewtool biraasu man baara zeni biraasu man yu baarisul muntaqimal baari sa man yarul te yar say morom yow yaa doon wax naan ilaa Touba bi barki Dembo Ndiaye dañ ko waroon a daj yóbbu ko ilaa Fuuta ah sëñ Moussa yow far nga fi bàyyi ilaa Touba bi di foo jëm ilaa fan nga jëm mbokk yi sëñ Touba ngi noonu moo tax may leen jërut xulool jërut xeexal kuy léewtoog sëñ Touba rek bàyyi ko rek zullu lazi yubaarisullaah al jalil sullu salilin fawqahu kullu salil alhamdulilahi rabil alamin ndagam Moussa Diop dem na bàyyi fi ilaa Touba bi maa ngi seetaat ñeneen nag sëñ Ablaat noonu woon sëriñ Tuubaa moo yaral boppam yaat yat wi jaan ju fi mat ba saamaan ba yaakaar ne koo matt bu gumba koo buusu mu dee yat wi dal nga faatu ñuy xaaraat yeneen jaan kon yeneen jaan yi jóg leen sëñ Tuubaa ngi fi moom Moussa moom yaru na maa ngi xaar ñeneen ñi ci des kon ñu bokk waajal màggalu Touba ni ko Cheikh Mouhamadul taxaa diglee ma murit yëpp màggal si te murit buy ñëw mu takk masque ndax li ko sëñ taxaa takk jar na murit yëpp takk takk masque wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.